ñu xam euh, moom euh, li nga xam ni jànkonteel na ko ci biir réseau yi mu wax nu ko un petit peu au nom de Samy Dia est-ce que sami nga tudd sister oui Samy nga tudd alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui nekk ndaw tuddee sa bopp Samy kenn jóge fee ca àll ba kenn xamagul kan la jël sa photo taf ak sa tur ñu ne yow yaay Samy Dia ngi jël ay nit di ko rey naka ngay dundee li ni mel euh, pour de vrai début bi dama ko defoon ay kaf comprendre nga parce que man je me disais lii du diire parce que mooy commencé daf ma man la njëkk a dugal photom ne dama dee. ah yow la njëkk wax da waaye boobu moo ngi yor beneen faux compte bind ci mbayang. mbayang waaw ok. comprendre nga léegi bi ma gisee loolu nit ñi di ma woo ma naan waaye yow yaa ngi dund yaa ngi ma ne waa lan moo xew nit ñi wan ma fi après ma dugg commentaire def ay vidéo ma def interview wax nit ñi dara dalu ma que man je bien. ok ñu signalé compte boobu mu yor ba compte boobu tëb. après mu piraté sama beneen compte TikTok tu vois après mu changé tour bi def sama vrai tour ak samay photo comprendre nga léegi au lieu que mu ne nit ñi léegi man euh, je suis décédé dafa changé ne man léegi man maay borom compte bi jël sama lien Instagram def ci compte bi di rey ñëpp di en fait di collage par exemple bu xamee ne man par exemple xam naa la day jël suñu photo ma yow collage bind benn numéro wax ci lu ñaaw kem Samy day sekk ak nit ki lii yëg lii léegi en tout cas daal ku ko soxla noo ko contacter ci numéro bii nii. est-ce yaa ngi dégg après compte euh, li ma lay waxee mooy soo ko expliquer nit ñi dañ la naan non bàyyi mu sedd après dina bàyyi bu yàggee dina bàyyi mais avec le temps affaire bi gën a aggravé wu. vu que sama lien Instagram moo nekk ci compte bi à travers ci lien Instagram boobu noonu saaga bu nekk saa yu ma yeewoo saaga na nay te ñun pël xamuñu saaga mu fet du coup su ma dégloo saaga yi dama naan waaw damay su ma am na ñoo xam ne sax dama leen di expliquer carrément wan leen ay preuve wan leen samay plainte que du man mais on dirait que ñoom duñ ko gis en fait. dañuy continuer di la waaye dañuy continuer am na ci koo xam ne yàggu ça fait même pas trois jours mooy li la envoyé. Hmm. ma yónnee ko ay preuve yónnee ko sama plainte yónnee ko lépp même lépp en fait mu continuer di ma saaga. ñoom daal jàpp nañ ni yow yaay def ñaawteef. waaye ma génn su ma génnee ci kaw tali bi c'est pareil moo tax léegi su may génn damay préférer nëbb sama kanam bi wala. def ay perruque yoo xam ne day day day muur sama kanam parce que keroog su dama génn ñëw ci kaw tali bi ay grand di ma saaga lu nekk. Hmm? donc euh, pour génn gi sax dafa xaw a metti damay tiit parfois. c'est tout un def vaquer say occupation. mënoo sax comprendre saaga yi en fait ay dafa am si biti dafa bëri ñoo xam ne ils sont pas conscients. ci vois. au mais est-ce dañu xamul rek te bëgg nañu xam kan la. man je me dis xam je dis pas que ñëpp xam nañu mais ñi may saaga am na ñoo xam ne xam nañu. parce que tey su ma doon def lu bon xanaa man du ma wax sama tur du ma bind sama tur du ma def sama photo damay nëbbatu te kooku day def live non pourquoi muy nëbbu kanamam. mais comme yow la njëkk a dugal jàppoon yow amoo benn idée que war nga ko xam yow. moom ci ay waxam nee na xaw ma yow euh, daf ma doxaan ma ñàkkal ko kersa mais bii que dafa mën a fen man góoma ko parce que chaque fois ah su nee daf ma doxaan kay ça veut dire que la tu vois léegi man je sais pas chaque fois day changer version chaque fois day changer version te sama vidéo yi muy dugal ci compte bi mais d'habitude lim la njëkk mooy mooy am solo li mu la njëkk wax. moi je voulais parler de daf ko woo téléphone wala daf ko bind wala. am nga am nga certitude ne kiy wax ak man sexe féminin la wala sexe masculin la parce que d'après vidéo yi ñu gisoon. yi ñu génne woon noonu ku jigéen moo génnoon ñëpp foog ni jigéen la. Mm. la elle parle de ku ko doxaan alors. je je je je nga wax ak moom téléphone da nga wax ak moom message ba xam ni kii ñun nañ def suñuy recherche ci nit ku góor wala ñu def suñu orienté suñuy recherche ci jigéen. non non moom euh, dafa ubbi woon dafa dafa dafa ubbi beneen compte boobu supprimé na ko sax compte Instagram dindi ci sami def ci samay photo ci la ma message yi. am nga capture que loolu yàgg na xam nga en man je me dis tey bu nee moom daf ma doxaan man ma bañ bay je ay fen la parce que lépp mu ngi commencé euh, ci euh, Fokontu Mbayang. Fokontu Mbayang bi mu la fa dugalee def sa photo ni da nga desale am nga vidéo boobu aussi. waaw yor naa yëpp parce que Mbayang elle est comme une moi. te ah, okay. tu léegi le fait ñu may gis tout le temps ak mbay dañuy foog ne maa ngi moom ñoo bokk ndey ak bàyyi te Mbayang yorul compte TikTok man maa signalé compte boobu ba mu tëb. parce que man maa nekk tout euh, tout temps TikTok mel ni comme si que daf comprendre nga ba léegi buy def live day naan sami kañ nga may jàpp parce que maag yow ba ba police euh, du ma la mus a bàyyi damay yàq sa der dinaa la toroxal fu nekk te nit ñi dañ koy jàppale par écrit par écrit waaye musul vocal te man soo duggee TikTok man parfois damay jommi foo compte yi dafa mel dafa am ñu koy toppandoo. nga xalaat moom la yow. mënu ma xalaat parce que parfois dama naan kii est-ce que du rap sax parce que dama naan nit est-ce que nit pour nit pour normal dina def lii. faj ay guddi jooy ko li même pas comme kii démb bi ma koy envoyé affaire bi bi ma gisee euh, mooy camerounais bi ma doon saaga pardon. Euh... bi ma gisee audio bi kooku lu nekk la ma wax je amul lu ma waxul man yónnee après ma yónnee ko parfois dama naan du ma tontu. mais su saaga yi bëriwee muy saaga di saaga di saaga dama ne. pourquoi pas ma yónnee ay preuve te wul sax koy won ay preuve parce que laajtewul mais pour juste man na benn nit ki xëy na moom su xamee ne du man mun na ko wax keneen léegi bàyyi ma yónnee ko moom mu xam ne du man ma yónnee ko lépp mu gën a continuer waat saaga yi ba dem tëju sama néeg maa ngi woor instant boobu noonu na ma yàlla baal mais yàlla laa mere moom mi ma saagam merewu ma ko de dama ko fàtte. parce que non astaghfirullah mais lu tax ma wax loolu parce que je me suis dit tey man yàgg naa moytu tu vois yàgg naa moytu c' est comme si que boo su ma toogee sama néeg su comme si que maa ngi jàkkaarlook yàlla parce que su may wax dama naan yow yàgg nga gis may moytu yàgg nga gis may daw lu bëri donc euh, la fait que lii dal ma man daf ma jaaxal. masa masa oustaz xam naa ni mbir mi lay am nga ci kàddu goo xamante ni war nga ko ci wax ndaxte yow mii. jël nañ la taf say photo defe naa ni jot nga ci message ak appel ba dëkk bi yëpp doon la woo euh, ci turu xale bu jigéen bii lañ ko doon defee muy Samidia mm-hmm. nga baal ma système man sax mënumaa gis kuy kuy jooy oustaz li ni mel naka nga gisee tey dem na ba réew mi yëpp xam nañ ko waaw xam nga rey ku deewul daa metti rey ku deewul dafa metti xawma kan moo koy def waaye bisam mi ngi nii may gis te buñ ko jàppee dana weeru comme géej moom nag comme du moom man li ma koy conseillé mooy lu ñu la jiiñ te du yow jarul yenn dëgg la àddina jiiñ nañ fi nit lu nekk mm-hmm. mu gérer ko ci conscience tranquille moom ci conscience am xam na ni du moom amul problème li nga war a def nii def nga ko mooy ñëw toog ci écran leeral àddina bi yépp ni ki ñu naan man la du man mais ci boo ci jógee nag jàllal ci leneen parce que nit ñi tax ngay jooy ak di xalaat suñ la reyee dañuy continuer ñoom seeni activité yow doo leen tardeel ci sa dee comme àddina nag noonu lay doxee bu la kenn teg stress xam nga ni du yow te du yow bàyyi lépp ci loxo yàlla parce que di rey nit ñi dafa metti sénégalais ni mu ragalee nga jékki-jékki def ay jooy ci kii bi teg son bu daw yaram boobu. mais man damaa jékki-jékki sama benn soppi bu nekk ndar woo ma allo oustaz ay oustaz da ngaa dee ma ne ko waaw démb ci guddi. gën <laughs> ko waaw gën ko démb ci mais dalay leer ne kooku cofeel lay waxee. moom yëgul sax ni ki muy woo moo ko décroché kon loolu dèjà xëcca dafa métti dëgg ki koy def ñi mu ko def bari na bis bu nekk mu rey ay nit rey ay kilifa da gis ku génn def vidéo naan salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di yégal ni deewuma maa ngi ci jàmm loolu lépp ndax jaaxle ak tiit <laughs> lay rey na sama kër gi di ko jaale mais mi ngi noonu